ñu waral bés bi ak borom bés bi fi war mën a xaar. asalaamaaleykum law dama nu may njëkkee si nuyoo di wax alhamdulilah rabil alamin ñuy sant yàlla ndax lu ñu commencé boobu ba tey premier jour koor ba tey ñu ngi joxe ay ndogu kon tey bu ñu ñëwee desul lu dul bés bi nga xam ne mooy vingt et unième jour koor ñu koy def ay cant di si rendre hommage Mbaye Dieye dañ naan alhamdulilah rabil alamin bañ ko fekkee wee di santaat yàlla bu baax di si am contentement nag parce que gis nañ engagement bi si gars yi demee ak détermination bi law ñi nga gis ci koñ bi yëpp daanaka sax dëkkuñu fi dañ fiy fréquenté rek waaye képp ku fi dëkkul ki fiy fréquenté kenn munul xam kii moo joxe lii wala kii moo joxe lii ndax jël nañ lépp yemale ko ñëpp génnee nañ lu ñu am def ko tar ndax bis bi ndax defe naa ne bis bi amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la am keroog maa ngi la koy boo xoolee li fi nekkoon li fi nekk ren li fi jóge dem bitim réew ko ë dañ leen di ñaanal fi ñu nekk jig leen ñu am fa seen wëssëg am fa seen ay teraanga ndax yëpp fii lañ koy defaat ndax ñoom it yàgguñu fa waaye góorgóorlu nañ yónnee fii di ñaanal Mbaye Dieye Mbaye bi fi jóge yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko àjjana daw si di wax ne nag bés bi nii lay demee tey cant dina yaatu trop parce que daaw gis nañ ne suñu sëriñ borom daaru yeg si na fi te tamit bëgg nañ bu ñu ndogoo ba pare ci kanam yóbbulaat ko reer bi ñu ko yóbbuloon daaw ndax ci kanam incha allah amaat nañ yaakaar ne dina fi jaar moom ak waa kër sëñ Modou Kara yëpp ñoom sëñ maak ñëpp dinañ ñëw ak ñëpp ay Mam Mor Afia kon nag ñi ngi yaatal di ci woo ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax sa law képp ku si jàpp rek gërëm nañ la gërëm dafa métti gërëm amul commencement amul fin képp koo xam ne sa dërëm dem na si wala sa dara ñëwul nga am yéene be contentement bi rek yéene ñu lu ñuy def seddal si sa xol te meroo si benn yoon ñu ngi lay ñaanal yow jàmm ci yow di leen wax ne nag muy dag Médina ak sit fi nekk Ngourane TV ak ñëpp Médina TV ak ñëpp kontaan nañ ci yéen parce que wane ngeen ne affaire bi affaire yu Médina la te ñun waa Médina amuñu tànku ginnaaw amuñu dara dañuy jàppale suñu biir dañuy dem ak solidarité ba mu jeex ndax fii koñ bi boo xoolee raq day toog raq day toog mag toog ay xale lañ nag su suñu ay mag ñi ngi fi jox nañ leen cër da nga gis maag Alaaji Fay di bokk jotaay te magee na ma lu bëri raqam Tafa Njaay rek moo ma mag nga gis ñuy bokk ñuy ñiy jotaay suñu ay jarbaat lañ te dañuy toog ak ñoom te dañ joxante cër joxante respect respect boobu am ci koñ bi nag ñaanuma yàlla mu dañ dañ ko gën a continuer parce que sëñ Modou Mbacké da ngeen koy fekk fii mu ñuy majjaalal yeewu midi di ñu majjaalal 16 heures ñun xale yi ñuy soog a ñëw te Mbacké Mbacké la ñoom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax mooy suñu kilifa fii amuñu fayam nag yitte bi fu ñu ko woo daf ñu fay fekk si teewal ñu fa comme kilifa du ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram law loolu rek laa amoon lu may wax waaw euh, Law damay naan asalaamaaleykum di nuyu waa Dak Médina di nuy Sénégal di nuyu Médina ñëpp Fass Colobane Gueule Tapée Rebeuss Plateau ah fii nag suñu secret du dara mooy ñoom dañoo dañoo tànk topp tànk rek ñun defoon suñuy ndijaay ak suñuy papa ñoom nan lañ judd def ñu ñun tamit ñu judd def noonu te booy fi am nañ yar am am nañ yar am nañ am nañ yar am nañ am nañ rusukaay macha allah tey jii su ma ñëpp kenn rek su waxee bàyyil rek ñëpp dañuy bàyyi comme li Badou Sylla sax bu wax rek Badou Badou wax na lépp sax mais dama siy yokk rek benn affaire mooy maanaam Médina moo mel noonu boo xoolee Médina law yoo xam nga li ma lay wax ndax foo dugg sax di nga lekk foo dugg yow xam nañ la ndax Médina rek diw mooy diw wala diw mooy diw faalewuñu loolu ñoom ñoom loolu lañ faale respect am cër yaru xam yaay kan. am na waaw am na ñoo xamante ni si jàpp am na ñoo xamante tamit xëy na dandul am jot waaw duñ si balaama kenn nag waaw parce que am na xam naa ne ku si nekk am na yéene pour def waaw am na ñu si jàpp am na ñoo xamante nag dafa war a dafa ñàkkul dañ leen war a tudd ñoo xam ne dañ siy jàpp chaque jour. muy moom waa famem Mbaye Gueye Mbaye famille côté yaayam Louise yàlla na ko yàlla yére moom tamit ñoom seen famille jàpp nañ si cant gi Zapata nekku fi mais loxoom jugu si cant gi Tafa Ndiaye nekku fi loxoom jugu si cant gi euh, Moussa Diop nekku fi loxoom jugu si cant gi Papa Mbaye waxi nopp Aline Kerr nit gars yëpp ay ñoom Fallou Faye ñi nga xam ne ñëpp ñëpp daal seen loxo ñëw ne ay Aziz Faye Abou Gueye Séri Thiané comprendre nga ay jaay Dieynaba ñu bari am na ñoo xamante tey jii euh, mënoo sax mu ko lim juum law jàpp nañ si cant gi barki arxuraan tet bi du dara de mais ñun gars yi fii dañu góor ku ne xam ne dëkk bi dafa metti mais gars yi dañuy faayatin billaay wallaay taala di joxe di génnee seen lépp génnee seen alal lu ne dañ gars yi dañuy jaay sax dañuy jaay seen àllal san ndax cant gi ndax lii mooy ngeen bàyyi da ko fonkoon kon lu ñuy def lu dul dañ koy yeggal tey jii bu ñu demee ba nit ñi ñëpp kenn nekkatu fi dina am par force ñu ko fi def incha allah bu neexee yàlla te loolu la ñu ñaan yàlla ah. ah damay tëjee alhamdulilah rabbi alamin yàlla nañu koy fekkee ay at at ku ko fi fekkoon tamit ñi ñi nga xam ne tamit ñu ngi si si biir suuf yal na yàlla yërëm xaar leen àjjana si barke yonent bi. waaw waaw ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di santaat suñu yaakaar te yegal Cheikh Ahmad Bamba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax waaw mu mel ne nag euh, papa li ci am solo mooy ndemu yàlla sa mbéy gay mbaay moom tey tey koo fi gis rek moom moo tax muy góor di rey boppam ndax kafe gi mi ngi commencé woon ci benn siwo benn siwo bu ndaw si la tax moom mbéy gay mbaay moo ko keree di doñ ko jox jaamu yàlla yi ñu toog ba mu yàgg ñu ne pourquoi pas mënuñu koy def café di ko jox comme ñëpp kon initiative bi ci Mbaye Gueye Mbaye la jógee kon bu ñu koy rendre hommage chaque saa su ne vingt et unième unième corps ñu ko ci ñu ko ci fàttali ko ci ñaanal moom moo ko fi sosoon waaye boo gisee tax bàyyiwuma des fois nit posé ma question bu tax nga sant Mbàkke takkal la xasaay takk sa ndigg may ne dafa am lu may jàngale dafa am lu may jàngale loo xam ne man maa ci war a jiitu surtout xale yi dafa am booy booy nekk ak ñoom dafa am foo war a ne buñ la ci dee gis ñoom day tax bu fekkoon diis na ci ñoom wala rëy na ci ñoom dinañ wàññi ndax àdduna li am solo mooy ku liggéey rek fayee te muy lu baax positif négatif lu baax rek lañ ciy wut. may café gi nag yàlla dogal tey jii ren jii ñu xalaat maam Abdou Faye ñu ne nañ ko def président ñu ne sëñ Modou Mbacke nañ ko def jëwriñ ji te nekk na fi te mosuñu imposé dara moo tax ñu ànd nag ñun ñëpp bokk ndey bokk baay tey ji bisu Mbaye Gueye Mbaye ñu ko ci rendre hommage di ko ci ñaanal moo waral kaamil yi noonu ngay gis si kaw ñu koy wàccee pareegun xéewal yi yëpp boo xoolee moom lañ koy defal ak bokki taalibe ak Baay Faal yi kóllëre ñëpp def ay t-shirt def ay xéewal fas yéene koo ko ci suñ borom yërëm ko te jéggal ko fa mu tëdd ci tubaa yàlla yërëm ko jéggal ko mboolem julit lii nag ndogu li nag ñun moom dañ cee nekk rek ndax xooluñ ci ma Samba xooluñ ci ma Demba yàlla lañ ciy liggéeyal te yàlla koy liggéeyal waroo xool kenn ndax payug yàlla moo gën too payug doomu aadama te payug payug yàlla lañ ciy séntu moo tax ñu rey suñu bopp bool takk suñ dégg taay wun sonni wun diiru koor gi noonu la ñuy def waaye lu ko jiitu boo xoolee koor yi fi jaar nii lañ koy defee parce que luñ ciy war ak li ñu ciy bëgg mooy faa du jógee ci sëñ Modou Mbacke mi jiite xale yi damay bëgg tout le temps rek man mi ne ci kanam bu ñu rek gis ma mooy waral saa su ne fu ñu jilee fu ñu tisbaar rek noppi dama am jàmm damay takk sama damay takk sama ndigg jàpp sama euh, jàpp sama bopp te ànd ak bokki taal bi ñu ànd ak ñëpp di liggéey moo waral ndogu li moo waral Médina it maa ngi lay sant di gërëm barki dem sama cant gi waa Médina ñoo ma sotle jàpp ci ñoom ñëpp foo xoolee euh, koo xam tijaan bi xaadir bi layen bi ñeseen bi cant gi foo tourné ñëpp a ngay gis ko wax mu ne sañ Modou Mbacké lebal na ma bu dee bis sax sama xar boppam metti na ñëw na seet si ko loolu nag du ma ci bàkku du ci ndamu dama jëlaat lépp sante ko yàlla te xam ne nit ñi ñoo baax waaye barki demu samedi waa Médina maa ngi remercier ñëpp sotle nañ ma ndax tey ku génnoon keroog samedi bi da ngay yaakaar ne événement bi fi nekk benn la te amoon na ñeneen ñuy may santaat yàlla rek te xam ne Médina maa doon seen dàll maay seen avocat maay seen lépp fa séen naa ku xewle bëgg naa caa teew mais liñ ma defal démb barki démb loolu bor la boo xam ne ñi ngi waxoon jéem a fay waaye sama xol sedd na maa ngi sant presse bi yëpp ndax jàllale nañ ko Dak TV Médina TV Xalaat TV ñoom ñëpp en direct Europe dañ lay woo fépp ñu ngi koy seetaan en direct mënu ma leen a fay yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla sutural leen bég naa kontaan naa yàlla na yàlla faj